Le représentant du patronat se prépare puisqu'il prendra la parole à sa suite. Ici. Je ne sais pas combien de minutes on a. Deux minutes, donc je ne vais pas sortir mon papier. Je vais être très bref. peut-être même moins de, de deux minutes. Je pense tout a été dit. Excellence, Monsieur le Président de la République salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di nuyu Monsieur le Président ak politiciens yi fi teew yëpp chef de parti man politiciens yi laay bëgg a waxal réew mi dafa sonn population yi sonn nañu liggéeykat yi sonn nañu ndax jóge nañ Covid deux mille dix neuf deux mille vingt et ba léegi ñu ngi ci crise politique bàyyi indil jox ma bàyyi kenn liggéeyatul njëg yaa ngi yokk liggéey amul entreprise yaa ngi tëj ñenn ñi ñenn ñi mënuñ am koom-koom. ndóol baa ngi yokk dañoo bëgg wax dëgg yàlla tey ci jataay bii nga wootee président de la République ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax ñun nag daañu am jataay xëy na ak yow pour wax la la nga xam ne lii moom lañ la war a wax ndax yaa ngi naan dangay dem am na ñoo xam ne dem nga tàggu leen waaye ñun bëgg nañ toog yow wax la aussi lu ñu xalaat di la gërëm ci jataay bi nga convoqué tey ndax diisoo ci la lépp xej jàmm nag moo ñu permettre ñu yóbbu suñu réew fi ñu ko bëggee suñu amee jàmm li nga xam ne li moom la ñuy wax mooy dem ci koom-koom bu naat naataange ak yokkute ak prospérité mu jëriñ askan wi jàmm ngoo ko mën a may ñun nag ay syndicalistes lañ di ay politiciens waaye aussi wër nañu Guinée gi ba ñuy wax nii man def naa ko douze aller retour te crise Lassana Conté ba yi passé li nga xam ne am na Burkina xam nañ lu fa xew li xew Niger xam nañ lu fa xew Côte d'Ivoire gi la fa xewoon aussi gis nañ ko ku tukkiwul nag du gis du xam kon yàlla nañ yàlla may jàmm président ñu ngi ñaan yàlla politiciens yi fi teew parti politique yi man loolu laay jeexalee daal ndax ñun suñu revendication mi ngi xaar képp kuy ñëw xamuñ kan la kii yàlla nag nañu indil ki gën ci senegal yan na ko yàlla def ñu jà déggoo jàmmoo waaye xam ngeen ñun suñuy revendication ñu ngi fi te ñu ngi xaar aussi gouvernement bi indi ci ay tontu li sotti ñu matal ko lu sottiwul it kii ñëw ëllëg te yal na yàlla def kii ñëw gën ci ñun bu ñëwee toog ñu continuer dialogue bi ak moom jàkkaarloog moom mu saafara suñuy tawat di xam ne jotaay bi yal na ci yàlla def jàmm yal nañu yàlla def déggoo te li nga wax da nga wax wax ji dafa farenkolaayu man dama la déglu nga ne sama màndaa jeex na nekkuma fu pour toog wax répété nga ko tey waaye bu ma wootee li ma ci soxla rek ñooñu jàpp dat suñ jàppee dat ba pare la ci des ñu waxtaanee ko ngir yàlla jàpp leen dat ndax sonn nañu jàpp leen dat ak dat fu mu mënta nekk bu amee consensus ngeen jàpp ko dem élection jàmm ji ñu dellu si suñu ne liggéey réew mi jëm nekkaat ci jàmm su fekkee ne conscience amul ci date bi ngeen fixé date en tout cas ñun loolu lañ soxla réew mi moom la soxla il faut dépasser cette situation qui ne peut plus continuer et qui n'a pas sa raison d'être kon loolu daal dañuy wax fixé leen ñu date ñu dem élection ak date bu mu mënta nekk bañ ci waree rek jàmm nañ ñoo jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, Monsieur le secretaire général de la CNTS.